asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñuy ànd ak euh, rajo bi di Rewmi FM Dakar quatre-vingt-dix-sept point cinq rawatina seen émission euh, sociale toute la ville en parle samedi bu jot dix heures jàpp onze heures ngeen ci ànd ak euh, Ndeye Comba tey ji seen émission sociale toute la ville en parle dalal kii di Ahmed Daf nekk initiateur ak tamit directeur bu centre Delossi di yëngatu ci ñi nga xamante ni wala di jàppale ñi nga xamante ni dañu am feebaru xel ak yeneen i ponk kon daañu ko waxtaanee di jafe-jafe yi nga xamante ne ñi am feebaru xel ñu ngi koy jànkonteel file ci Sénégal lan moo waral exactement moom mu daal di initier tëral ab centre ngir di fa jàppale ñi nga xamante ni dañu am feebaru xel lan moo ko waral tamit lan moo ci solution par rapport ak situation bi la ak yeneen i ponk yu soxal actualité bi daañu ko waxtaanee ak kile di Ahmed Daf ñu lay nuyu di la dalal jàmm. Ndiaye Faye moo doon di la remercier d'abord ci invitation bi. Mhm. aussi di nuyu spectateur ñi dañu déglu di nuyu waa Sénégal ñëpp. Mhm. ñu ngi lay jaajëfal ci sa disponibilité peut-être laaj bi ñu lay njëkk a laaj euh, naka la la ñëwee nga euh, daal di euh, indi walla taxawal benn centre bu ñuy woowee delloo si nekk fële ca Tëngéej. waaw waaw delloo si comme ni dafa nekk loo xam ne peut-être activité am dama si yàggoon. ay mm-hmm. jamono di si dem mais tamit dafa ne moon ay période dañoo dem ba taxaw ñëpp di dégg ne restez chez vous restez mm-hmm. ku nekk di jël sa njaboot di jànc di uuf mm-hmm. man nag ñoom dañoo yo nekk sama njaboot yàgg bokk si man ñan euh, mooy ñi nga xam ne dañu am feebru xel ñu ne naan les handicapés mental ñeneen bi naan aussi aussi les malades mentaux euh, léegi ñooñu mois boobu ta nga xam ne ku nekk yaa ngi fat sa njaboot il fallait que aussi ma trouver quelque part am ne sama njaboot si la si la si la centre centre bi de dikkee si laa dem toog waxtaan ak ki nga xam ne muy loon la muy le préfet du département de Rufisque di sëñ Babacar Kane mhm. waxtaan ak moom mu doole jàppale ñu ay jamono si ay école lañ loon ne école lañ loon ne ba tey yàlla def na ni am nañ beneen béréb boo xam ne nekkul école ab kër la mhm. Mhm. maanaam sa njaboot naka la ñëwee ba nga euh, ba nga sentir ni yow da nga war a aider wala avant ngay euh, ubbi centre bi déjà da nga doon aider ñi am feebar xel naka la ñëwee exactement waaw loolu waaw loolu da nga ma posé question am naa benn xarit normalement du ñàkk mu ngi suivre. Mhm. Euh, démb de tabaski bi dafa gis sama publication jigéen envoyé message ne waa booy yow yaa ngi sëy yii ba léegi nii. Mhm. seulement dafa nekk loo xam ne mun naa ne euh, bon lu naturel la lu yàgg la si man. Mhm. mais autant c'était cadre dem la may leen lekk toog waxtaan ak ñoom yooyu euh, waxtaan ak ñoom échange ak ñoom. bañ ba kuy suivre bu bëri sama page ku dellu ay at ci ginnaaw gën a gis même ay événement gën a gis peut-être ñoom la di feetal ñoom lay faral loo xam xam ne lu yàgg la lu yàgg la loo xam ne xëy na peut-être de façon naturelle la ñëwee si man. de nature naturelle peut-être am na lu la si dugal euh, xolu yërmande bu lay pousser ngay xalaat su souvent les malades mentaux surtout ñuy nekk ci mbedd mi. waa loolu euh, benn damay faral naan sama papa laa ko jëlee. Mhm. sama waajur euh, bu bu bu góor di ñaan di ko ñaanal yàlla yàlla xare ko àjjana. Mhm. aussi man ba may gën a nekk xale ba léegi su ma loon romb si ma si mbedd bi sax su ma gisoon nit kuy yalwaan wala nga ànd xale di yalwaan samay rongoñ dañuy tuur wala du ma mën a romb di dem mhm. bu may nekk xale bu ndaw dama yàgg a rêvé euh, di naan yàlla na def moom suma màggee ginnaaw tabax nga dem kër mhm. jamono yooyu du woon ñi nga xam ne seen xel neexul mhm. mais pour ñi di yalwaan si mbedd bi ñun mu leen siy mën a dugal li may dem de fur et laay mujjee di gis ni. Mhm. ñi nga xam ne seen xel neexul te ñuy RS mbete ñoom ñooy la couche la plus vulnérable te mhm. ñoom ñoo gën a jara euh, euh, dimbali. Mhm. léegi maintenant si laa commencé di dem ndànk na ba di commencé maintenant di di gën a di leen gën a jàppale ñoom. que que que donc dafa nekk loo xam ne dafa moo. mu mën yàgg nga leen di leen jàppale. waaw mais avant ngay teg euh, indi ubbi centre bi naka nga leen daan jàppale. waaw avant tijji centre auparavant waaw. la woon ci mbedd bi. dama la bàyyi ba guddi si. di leen yóbbul ñuy lekk ñoo ñuy naan. di toog parce que ñu bëri ñoom laa gën a mën a waxtaanal. Mm-hmm. dem toog waxtaan ñoom. aussi euh, yóbbu ay yëre aussi ku ma gis ko xam ne sa yaram peut-être am na dara loo xam sentir naa que temps yi euh, neexul ma xool nan laa ba ma la jàppale pour que nga mën a euh, tane. Mm-hmm. nga nga mën a tane ba mën a mm-hmm. mën la yóbbu hôpital gars yi mën la xool. au au début c'était c'était ça. loolu sax moo indi ba tey ba centre mën a am ba préfet mën si jot parce soo leen jëlee même jamonoy début Covid bi. li muy sa centre amul kenn ci ñoom koo xam ne jamono yooyu gargot ñëpp loon tëj mais amul kenn dama leen wër guddi fi ku nekk fi nga ne ginnaaw la fekk indi la li ngay lekk euh, li ngay naan mm-hmm. mais avant Covid ay jamono c' était pas tous les jours. Mhm. c' était pas tous les jours des yàlla da may nga dem euh, jox leen des fois du la may euh, foo fa rombee des fois dem toog waxtaan ak ñoom wala échanger ak ñoom. Mhm. dafay dem ba xam ne man si sama doon dox si mbedd bi euh, Tëngéej. Mhm. avant may takk sax peut être ñenn sama xeet xam ne ñu doon dox si mbedd des fois gis ñoom ñu may dogaale di jël di ñëw si man ñuy waxtaan échanger. donc avant loolu la woon waxtaan la woon ak ñoom may leen may leen lekk. et échangeante ak ñoom. Mm. mais yow naka ngay mën a communiquer ak ñoom maanaam ñi nga xam dañoo am feebaru xel ba seen famille beddi leen ba société bi beddi leen euh, naka la Ahmed Daf di def ba ba ba créer boobu communication entre yow ak ñi nga xam ni dañoo am feebaru xel. attention bi nga leen di pay prêter la rek. Mm-hmm. ñoom damay faral di naan ñoom wax euh, ñun ñooyam xam nga tey da ngay xool. soo gisee ni ku jël gaynde mm-hmm. ñëpp xam nañ param naturellement ni mu mel mm-hmm. nga mën ko waxtaan ak mën a dressé de ma nga xam da nga koy aumuñë mën a nekk ak moom mm-hmm. kon maasama doomu aadama ñoom laa majeure partie nit ñi li leen di buddi la nit ku leen di buddi ngay xool képp ku leen di approché suñ la xamul nag les premiers jours a réticent parce que ñoom tamit la majeure partie ñoom euh, dañuy xaw a ànd ak xaw a ñaaw njort si yenn doomu aadama yi parce que leen di xoole ni leen di gisee parce que dañu gis ni si mbedd bi laa ma leen di romb si poubelle nga leen romb mhm. doo leen sax faale soo amee dal mun nga ko sànni ba sànni ko seen kaw sax te sax doo doo ko yëg mhm. d'habitude du kenn di waxtaan ñoom dañu lay sax nga daw nga daw nga lii donc su nekkee xamuñu la nga soog a ñëw premier jour dañuy xaw a ragal mais soo koy def pendant quelque temps da ngay gis balaa fin suñu la gisee ñoom sax ñooy ñëw ñoom ñooy ñëw approché da ngay gis koo xam ne pour yow da foog ni parce que dal na ma si cas yu bëri ñoo xam ne toog na ay weer pour du ñu wax mhm. mais da ngay jékki da ngay gis ñuy waxtaan ak yow commencé di wax commencé di wax si noon ngay dem nag ba commencé di mën a échanger ak mhm. te aussi tamit seen feebar bi ñu am handicapé mental euh, ñu am na dafa am loo xam ne lu garaaw dafay am mhm. doo H24 peut-être la ñuy leneen feebar feebar bi di leen sonal des fois yaa mën a ñëw tey Euh, mun nañu waxtaan ak yow ba nga profité ba xam seen vie xam seen famille xam sax la moo leen jot waaw kay moment de lucidité waaw dañuy normal mhm. aussi tam sooy dem ba di yàggax ñoom yàggax ñoom gën a mujjee gis ni moment moment yi ñuy toog ak di normal gën a commencé di bëri te loolu si noonu nga leen mën a aider si noonu nga mën a def di leen récupérer ndànk ndànk ndànk ndànk bañ bañ bañ mën a mais mais yow euh, Ahmed fan nga daan jëlee avant déjà centre bi hmm. euh, loo leen di jox si mbedd mi lekk yi wala di leen utal ay yëre ainsi de suite loolu ba léegi sa que loolu yëpp sama poche la yàgg a jóge sa poche lay jóge xam nga dama yàgg a gëm ni hmm. euh, sooy def dara ngir yàlla tax t'as pas besoin de oote. Mm-hmm. ndimbal pour gars yi ñëw. Mm-hmm. parce que tamit euh, da da ngay def lii di ñëw yàlla yàlla moo moo moo moo mooy moo moo mooy mooy tax muy ñëw après. Mm-hmm. wax ma lii gis na ba tey actuellement sama centre actuellement fi nekk nii lépp lu ñuy dundee man la. des fois mu am euh, ndimbal. sa poche la yow yaa koy liggéey ñëw partagé amul kenn koo xam ne chaque fin du mois gën a yëkkati amul kenn ku ma garanti chaque fin du mois 5000 francs tey pourtant maa ngi leen di dundal ñu ñu amul jour bu ñuy toog maanaam lépp looy def lépp luy doomu aadama di def ci këram ñoom dañ koy def tous les jours ndekki añ reer naan ataaya. Mm-hmm. ah ku fee ku feebar gi na fàcc. Mm-hmm. yor nañ yor nañ seen frigo am nañ courant am nañ ndox am nañ. lépp di sangu di solo. di sangu di solo yor yor seen i gaz tamit am fa lépp lu am si kër. ah dafay am rawatina wax ma kër kër gu ndaw de lépp lu am si kër gu mag dafay am. Mm. te pourtant yàlla mu ngi fay mu ngi fay indi sa sutura. mais naka la euh, centre Delossi bi ñëwee comment ça s'est exactement ba nga am local est-ce que am nga si autorisation ainsi de suite comment ça s'est passé. waaw loolu fa laay loolu fa laay remercier une fois de plus le préfet du département Serigne Babacar Kane. Mm-hmm. ndaxte ba mu amee ba ñu toog ba waxtaan si. Mm-hmm. non seulement jàppalewul yem fi may wax samay pensionnaire waxuma ñu même ñaata ñu bëri xam préfet bi moom moo la utal local. moom moo ma utal local. xamoon na local bi li nga fay def. nga xamoon na ko waaw. Mhm. avant loolu yëpp dañ toog si biiram dañu dañ toog si biiram waxtaan. avant loolu dañ toog si biiram waxtaan. Mhm. échanger lépp. Mhm. Euh, lépp euh, ba nga xam ne lépp lu ñu def rek ñun ñoo ko ñu ñoo ko defandoo. tey yemul ci loolu parce que xam nga ne des fois mun na la jàpp rek ab bàyyi la nga dem mais euh, maanaam même pensionnaire yi fa ne. ñëpp la xam rawatina même Afrique tey Euh, il y a parce que euh, du ñuy ma téye rek ñoom laay toppatoo du ñu nekk si centre beeg. waaw defoo focus si ñi nekk. non non euh, à du ñoom rek. Mhm. duñ ci aussi ñi nekk si centre bi rek. Mhm. am na ñu nekkoon seen biir kër yi. am na ñu ne woon si bi mais tey grâce grâce à moom am na ñu bëri tey convaincre seen famille ba ñu uta leen arrêté boo xam ne moom la jóge ba ñu mën leen yóbbu hôpital accompagné aussi financièrement ba nga xam ne tey ñooñ seen état ñu bëri dellu dellu si la bu baax loolu préfet bi moo leen siy jàppale waaw c'est grâce au Euh, bañ na ko récemment yàgg yàggul da dama toog benn jour mu oo ma téléphone. Mm-hmm. nee ma nee ma foone ma ne ko maa ngi mënoo pourtant maa ngi si centre bi. ma ne ko noo xam ma ne non non garaal bul ba ba bàyyi gi ginaa fi jaaraat c'est juste pour dire que ni moom sax dafa dem balaa moom dafa bokk ci mm-hmm. wax. xëy na liggéeyam moo ko mayul mais wóor na mbóor li may def ni su ko mënoon moom moo koy def. Mm-hmm. donc euh, moom ñun centre bi amuñu fayam. te comme on dit souvent tey sam su amee sax c'est grâce à ba local fi ñu ne kër gi ñu nekk nii instant yi mhm. c'est grâce à moo moo moo tax ñu mais à part préfet bi kan moo lay soutenir si si lii nii à part préfet bi bon am naa ay xarit samay xarit yoo xam ni ñooy nekk centre bi ah, waaw samay xarit yi nga xam ne des ñoom ñoo fay jaar mais par contre centre bi man kese maa fa ne je vis avec man kese maa dëkk ñoom autant nag début Covid bi Euh, beaucoup de Rufisquois ñëwoon nañ. Mhm. dëkk ñun ci centre bi. parce que mhm. temps yi seen liggéey dafa arrêté woon. Mhm. mais ba liggéey bi reprendre ku nekk da nga reprendre say activité mais actuellement man maay vivre ak ñoom mais par contre samay xarit ñoom ñëpp foofu foofu mooy seen kër maanaam euh, ku amul fooy dem wala amoo leen fu ngay ñëw toog soo amee temps bu ndax fu ngay ñëw toog wéttali ñu. ñëw toog toog toog ba benn ñu naanandoo ataaya échanger ndox mhm. mhm. mais souvent processus bi Ahmed naka lay demee da ngay fekk ki am feebaru xel ci mbedd mi nga jël ko automatiquement naka lay demee ak tamit soo ko jëlee euh, accompagnement bi naka lay demee exactement est-ce que am na ñoo xam ne euh, jëlee nga leen ci mbedd mi toppatoo leen ci centre bi delloowaat leen seen kër comment ça se passe souvent naka lay demee. ok merci beaucoup d'abord je tiens à préciser que que des orphelins. parce que fan mhm. fan ñoom dafa am orphelin. je prends ñi nga xam ne dañuy erre si mbedd bi te seen mbokk yi waxatuñu si dara wala seen mbokk yi. Mm. gisatuñu leen xamatuñu leen. su ma la gisee avant tout les malades mentaux errants. les malades mentaux errants laa jël orphelin boole si. Mm-hmm. parce que su ma la njëkk njëkkasee ba gis avant toute chose. Mm-hmm. li si ëpp solo si ñoom mooy c'est la mise en confiance. Mm-hmm. moo si ëpp solo si lépp une fois maam la mise en confiance mun nga ko commencer si mbedd bi continuer ko si centre bi. su amee tamit il nga dem jéem a recherche retrouver la famille te là aussi c'est un peu compliqué mmh. maintenant une fois na nga jéem fexe fexe say moyen ba retrouver la famille jéem a créer moo mën a fexe ba famille bi mu jéeg a nanguwaat jël si waat mhm. su nekkee famille dañoo da leen réeroon dina yomb su nekkee réeru leen woon xamal nañ fa mu ne te mhm. sawaratuñu foofu la mettee mhm. maintenant su yooyu su ñëwee nag si lay une fois de plus ma remise le préfet si lay préfet euh, dent parce que c'est moom laay mën a waxtaan a fay ba mën a am arrêté si moom pour que ñu mën a euh, euh, arrêté d'internement mhm. pour mën a xool na la ñuy naxantee famille bi pour famille mën a ñëw ñoom waaw kay pour que ñu mën ko yóbbu hôpital man après ça laay wax la famille mhm. su nekkee tëngéej ngeen dëkk man je peux suñu xawee bañ man maay prendre en charge lépp loo xam ne si kër gi da ngeen ko war a defal man maay ñëw ginnaaw man maay déplacé wu sur place man maa koy ñëw defal mhm. man maay ñëw man maa koy defal des fois s'il y a mu xaw a comme yenn yi damay jël yóbbu ñu jékki jekki seen ordonnance yi xaw a manqué yenn yi mm. jàpp après lañ ñu may mujjee revenir su ma xool na laay mën a def ba mën leen si ba mën leen si jàppale. ba mën a jënd ordonnance mm. maintenant su nekkee comme euh, ñi centre ba da nga retrouver la famille wala retrouver la famille wala gis na retrouver famille sawarul te obligé. parfois nga retrouver la famille famille du nangu jàppale. képp képp ku nekk sama centre ku fa nekk ku nekk centre ba. ba benn moment bi xamal ni famille bi ñoo bañ. Mhm. parce que l'objectif pour pouvoir aider le maximum koo xam ne maanaam je le dis souvent la famille lim si mën keneen mënu ko si. Mhm. et laa la famille ñoom tam ñoo am obligation pour def yenn yi. Mhm. maintenant nag suñu bon xëy na des fois par faute de moyen xëy na des fois par leneen ak leneen. liwuñu si donc donc damay mujjee jël damay mujjee jël téye mais depuis quelque temps j'ai changé un peu de méthode parce que aussi euh, les moyens font défaut. Mm -hmm. ay temps avant may teg centre bi dama doon dem mu ne samay activité professionnelle mhm. di am li may gagné professionnel li may gagné yiy ñëw di ko génn di ko mën a séddoo ak ñoom mhm. maintenant euh, samay activité professionnelle yëpp dama ko mujjee gelé mujjee nekk ci centre bi parce que mënoo leen bàyyi foofu noonu ci kër gi ñoom kasi il faut nga toog di leen surveiller soo yeewoo il faut nga defar kër gi mhm. il faut nga sangal leen il faut nga toppatoo leen defar leen ñu lekk des fois yooyu yëpp eh, il faut nga def donc mënoo mais professionnellement nooy continuer sa liggéey euh, bon sincèrement euh, depuis dama ko arrêté complètement dama ko arrêté complètement ñëw concentré uniquement si ñoom parce que moom laay bon beaucoup de gens ñu bëri samay ñi jege waale ñu bëri nee nañ ma ce que je fais lépp moo waru moon def loolu. mënoon mhm. naa leen bàyyi ko ne mais c' est juste une question boo xam ne euh, bon euh, il faut dara dara am pour askan bi xam ne. Mhm. ñii mën nañ dëkkax nit ñi. Mhm. pour famille xam ne ñii mën nañ dëkkax nit ñi. parce que man euh, li ma si jublu mooy que ni faire la surtout la promotion de la santé mhm. ñu xam ne par exemple ñi li leen dal. Euh, ce pas des gens à rejeter ce n'est pas des gens yoo ni leen di gisee ci mbedd bi mhm. fekk leen ci état bi nga xam ne du du seen état naturel parce que nit ñi ñoo leen rejeter ci mbedd bi mhm. fekk fa nit koo xam ne toog na ay weer sanguwul fekk fa nit koo xam ne mu ngi xiif fekk fa nit koo xam ne xale yaa ngi koy romb di ko sànni far force soo ko jegee mu xaw a agressif mhm. te alors loolu du seen milieu wane leen que ñoom ñi ngeen ni ñu meloon ni xool leen tey seen milieu naturel su leen fa yóbboo milieu bi nga xam ne yow fa nga dëkk keneen ak keneen fa la dëkk mhm. nga xool na ñu mën a euh, toogax nañu waxtaan nañu te loolu noonu laay nekk def te foofu noonu wóor na mieux mieux que ça soo ñëwee sama centre ñu ngi lay passionné yi nga fay gis amul kenn koo xam ne ginaa la jox euh, médicament par exemple euh, psychiatrique mhm. amul kenn si ñoo xam la koy jox amul ay jeng amul ku yëngatu nga jël cent garab cent garab du dal amul lépp cadre lan la mhm. ci moom laay faral di wax parce que santé li li moo fa ne après la en confiance il faut la socialisation mhm. surtout ça man fa laa gën a focaliser yow joxe woo garab amoo médecin amoo dara no j'ai des j'ai loolu beneen étape la maanaam su ma demee comme par exemple euh, ba xam ne j'ai réussi la socialisation mhm. war nga war a génn si laa lay euh, yóbbu par exemple médecin yi xool la def par exemple yeneen yi nga xam ne ñoom ñoom la war ñu mën ko def parce que par expérience dama si euh, li ma si yàgg moo ma permettre ma xam dara. Mhm. Euh, su nekkee da jël direct yóbbu hôpital d'habitude ci ma gis te say parents amuñu yenn moyens yi. Mhm. par exemple benn nit moo la prendre en charge. Mhm. su dee ba nit kooku yàlla jëlee ko fi. wala ni ko amatul les moyens yi muy mën a continuer par exemple say médi say médicaments di ko jënd parce que ñoom seen traitement il faut nit ñi xam ko euh, du traitement un deux ans wala yooyu long terme la kooku su fi nekkatul day rechuter moo tax ma ne lii gis naa ko depuis ba ma nekkee xale lii laay gis lii laay demul. Mm-hmm. pourquoi faire en sorte que ñoom euh, ak à part seen feebar nga fexe ba nga mën leen socialiser. ba nga xam ne mm-hmm. dinañ mën a dëkk ak mm-hmm. mën a defal lépp seen bopp malgré feebar te duñu te def dara. et loolu yàlla def nañ tey euh, bon macha allah ba ma fa nekkee ba léegi ay réussite rek laa siy am. tey jii nii fi ma nekkoon émission nii mun naa la indil keneen nga toog ma defal moom émission. mu wax normal. mu wax soo ma fekkee si kër gi tâche yi ma wax nii ñoom ñoo ma siy jàppale. ñoom su ma deful attaaya ñoom ñooy def attaaya su may par exemple rakas ndap yenn yi ñoom ñooy ñoo ñoo siy jàpp suñuy yàq ñi maanaam da ngay gis ni ku nekk xam nga actuellement ba li nga xam ne dalaa war mhm. ku ñëw déw bi moo dul xam yenn yi mais leneen balaa fay ku nekk xam na xam na li xam na yooyu ce qui veut dire que ça lu si ëpp solo mooy que ni euh, askan bi bàyyi si loolu xel bàyyi si ñoom xel seeni famille surtout xam ni dañoo feebar certes c'est te ñoom seen feebar dafa am spécificité moom laay faral di wax lu bëri ñu bëri mm. xamuñu ko mm-hmm. tey si ñun képp koo xam ne danga ngaa am par exemple tey bopp buy metti wala dara jot la yow xam nga ne da ngaa feebar xam nga fii nga da war a dem hôpital mm-hmm. ñoom dañoo feebar te xamuñu ko mm-hmm. allah kulaal du ñu yóbbu mukk seen bopp hôpital parce que xamuñu ko parce que mënuñu yóbbu seen bopp hôpital donc askan bi moo am droit pour jël leen yóbbu leen hôpital donc ñëpp toogee yóbbu ñu leen hôpital ce qui veut dire kon dañuy dañuy dem ba di ñàkk maanaam ba ba bés su leen yàlla di jël seen bakkan dañ koy jël ak seen i feebar mm. alors que ñun mënoon nañ leen aider mm. moo tax actuellement ci phase boobu laa gën a phase socialisation bi laa gën a ne yow si ngay gën a laa gën a mais est-ce que souvent nga mm. dem si euh, terrain bi surtout euh, taseeg koo xam ne dañu jàpp ne dafa am feebaru xel mm-hmm. euh, peut-être nga jël ko sangu ko defar ko ba mu set jox ko mu lekk ba suur nga xam ne kii xel ma dara jógu fa dafa nekkoon si ay jafe-jafe nekk ci ay tol tolof tolof amatul fu dëkk famille am bàyyi na ko wala am na déception ak jabaram ainsi de suite nga xam ni kii réellement jafe-jafe àdduna moo ko jàpp mais amul feebaru xel xel mais tout est tout est ok. mais loolu li nga wax nii moo gën a moo gën a bëri mm-hmm. loolu moo gën a bëri si cas mm-hmm. mais loolu tamit euh, feebaru xel la. Mm-hmm. mais bokkul benn niveau bi. feebar xel mais bokkul benn xam nga la majeure partie luy indi pro luy indi feebar xel lu bëri si ñu bëri soo jëlee tey soo suñu kaay ñu famille. Euh, xoolal suñu kër yi laa la mosopathie da nga jeg gis benn adolescent par exemple laa lay jox. Mhm. bu commencé tollu yenn at yi commencé xëy na peut-être di jëfandikoo si neebar. Mhm. wala su ko jëfandikul commencé di wane ba mu commencé di xuloo si kër gi. te nga xef jékki-jékki sax mu saaga ba saaga waajur bi ñëpp buddi ko ne réew na bon na. Mhm. yéen a koy commencé sànni. moom après mu ngi si mbedd bi. di dem di ñëw jékki-jékki xëy na am na benn grand. Mhm. am na kenn koo xam ne euh, maanaam amulul njëriñ askan bi au contraire day yàqal askan bi. Mhm. récupéré na booy bi. Mhm. def ko par exemple di ko yónni di ko jëndaloo yéen di ko dem jékki foog jékki-jékki di ko mosal yéen di ko def yéen xale bi commencé léegi kooku lay def kon waajur. parce que kooku la xam kooku lay def comme idole. di toog moom commencé di dem ay at. commencé dootul sanguti. commencé di fréquent su ko defee un an deux ans pendant cinq far force day commencé am mu xet. wala nga gis ñenn ñoo xam ne aussi dafa am cas yoom day am ci biir famille. Mhm. parce que man rencontré naa ay cas yoo xam ne ba ma demee ba xam ni mu demee da ngay xam ne même su nekkoon yow yàlla su la mayul dëgëraay tigi te mbedd ngay mujjee wala doo bëgg lu dul xar wala ngay bëgg a dem sa yoon defar nga am yoo xam ne nit da ngay dugg sa biir maanaam da ngay gis sa famille yenn yi wala nga daj si yenn si yi mhm. benn exemple te ma tudd am am na kenn koo xam ne yenn yenn ba mu nan nan la ko dalee parce que ñëw na fekk na euh, soxnam fekk na par exemple beneen nit si kaw soxnam koo xam ne jege waayam lu jege waayam la woon. Mm, ku ko jege. muy si si si si la si la jël li mu li mu yoroon gànnaay. Mm-hmm. Ah, jam leen ba yaakaaroon ni rey na soxna. Mm-hmm. ñu jàpp ko si quelque naa bàyyi ko la si ba lu a expliqué mooy que su amee des fois si famille wala am koo xam daa am lu mu si gis loo xam ne moo ko tourmenté donc ñi nekk si famille bi dañu yàkkamte moo wér. Mm-hmm. parce mbir bi mu gis la. bi mu gis la te aussi. xam nañu même su ñëwaatee mënatul maanaam pour nga boole famille pour ñu doon benn problème la. Mhm. moo waral rek cause pour que nga boolaat famille ñoom mu ne woon problème yu rëy a rëy la. pour ñu retrouver seen famille mais koo si toogal. Mhm. la majeure partie da dem balaa fin euh, euh, ça prend du temps quelques mois. di dem. Mhm. da ngay xam lan mooy seen jàngoro. da ngay commencé xam ne ñoom dañuy mujjee. lan mooy cause bi wala euh, refuser si li ñu nekk nii parce na si lii lañ gën a nekk lañ nekkee à l'aise parce que lii xëy saa yi dem nañ balaa fee euh, dañuy ñeneen ñi mun nañ ko owee daw réalité mais daw ñu réalité bi mm. li ñu gis wala li ñu dundam moo leen ëpp doole ba loolu moo tourment moo leen tourmenté moo yóbbu yóbbu yóbbu yóbbu seen seen xel donc bari na ci ci ci ñoom mu moo si ëpp sax la mm. la majeure partie parce mm-hmm. loolu bokkul ay yëfu judduwaale ay mm-hmm. yëfu rab ak yeneen ak yeneen mm-hmm. mais cas yooyu moo si bëri mais ñi nga xam ne dañu yor rab peut-être que am ñoo xam ne ils sont dangereux ay ay malades mentaux yu yu yoo xam ne mën nañ la faat sax souvent naka ngay def ak ñooñu parce que am Euh, dañu am ay rab comme ni nga ko waxee am ñoom dañu violent ainsi de suite cause yu bari na mais am na si ñoo xam ne euh, dañu dangereux ba seen famille du ñu nangu dëkk ak ñoom parce que mën nga dëkk ak ñoom sax ñu xëy faat la nga ñàkk. ah waaw léegi souvent cas yu mel noonu nooy def ak ñoom. xam nga cas yooyu la majeure partie. Hmm. des askan bi ñoo bëgg a nit ñi cas yooyu noonu. Hmm, mais cas yooyu. Hmm. Euh, am na mais taxu kaa bëri yenn bëri yi te moom laay wax xam nga tey koo fekk ci mbedd bi. nga gis ko benn état pendant des années ni mu mel si mbedd bi nit ñi dañ koy romb di ko sànni xeer di ko tooñ mhm. soo ko jegee fu mu jaar xaw a violence yow wala xaw a réticent mais su nekkee jël nga beneen approche sax moom premier jour nga ñëw naxante wala su nekkee am loo ko nga jox avancé dem bul taxaw deuxième tour troisième jour pendant quelque temps day dem balaa fee day xam yow yaay kan mhm. man recevoir naa comme daan naa toog di fanaan man kase ah 17 personnes 17 damay damay nalaw ba yandoor mhm. ma man maanaam ñaata yoon laa nekk ci maanaam nit ñi ñuy naan ñii dañoo garaaw ñii dañuy jamine dañuy lii dañuy mm. lii. Mm. alors que ni parfois gis nga askan bi ñoom ñooy euh, bëgg a def ñeneen ñi loo seen xel yi gis nga yëngatu day am am na ñoo xam ne comme tey amoon naa benn pensionnaire boo xam ne mën nga ko jox léeg-léeg ngeen nekk ça va mais moom su yëngatoo su yëngatoo day saaga wala sinon comme par exemple ñeen toog di lekk nii comme par mm. exemple euh, nga ñëw di lekk parce que il faut xam seen comportement euh, lekk dañoo par exemple ma njëkk la jox joxuma ko yow mii ma njëkk a jox mere na la. Mm-hmm. soo xafee su la jegee gina la dóor. Mm-hmm. te loolu euh, du ko euh, du du ko tey feebaram la. Mm-hmm. te pourtant man euh, li ma fa nekk mu musul yëkkati loxoom te teg ko sama kaw te su naree su waxee su commencé ma ginnaaw xam li la xam naa nan laa koy maîtriser lépp si wax la ak ndànk. parce que nit ku ne. même si ñoom am na loo xam ne dañ koy bañ comme yow ni nga amee am loo xam ne tey ku la fa àgg tey nga mel neneen ñoom tamit dafa am loo xam ne noonu lañ mel mais loolu il faut askan bi xam ni ñoom Euh, handicapé mantal ak ah, ñun bokkuñu ñoom pour nga comprendre leen il faut nga nangu leen muy après nga patient. Mm-hmm. après aussi nga am bëtu seetlu. Mm-hmm. parce que du ñoom ñooy taxaw di la naan lii laa bañ bañu ma lii mais yow yaay am bëtu seetlu di xool. seen comportement xam ne lii tey gis nga sooy gis nga comportement nii la jur mm-hmm. suba leer nga xam aussi suñu meree lan moo leen di calmer et que bien possible lu am la mais on dirait que pour l'instant askan bi ñoo si nangul investir. yow da nga bëgg a wax ma malade mentaux li leen gën a yokk mooy société bi ci boppam. société bi. Mhm. ah ñëpp ah c'est en général ma su may faral damay naan euh, la famille d'abord. pour ñuy mhm. commencer. Mhm. communauté bi euh, état central maanaam ñi maanaam. pour foo laal xam nga tey ma jox la exemple exemple bu gën a lii. tey euh, ñoom ay handicapé mental lañ mais jël par exemple les handicapés physiques. peut être foo munti dem peut être gin fa gis ñun la par exemple am nañ tey par exemple benn maison pour ñoom jëlal li ñu naan les causes les plus euh, diminuées les plus défavorisées mi ngi ma jël par exemple euh, daara yeex yu demee noonu mm-hmm. saa su ne yaa ngi dégg et yaa ngi dem yu demee noonu tey ma jox la exemple bu ndaw lu ñu jógee du tabaski mm-hmm. man loolu laa yor centre centre laa yor centre ñoom xam nañ ko mm-hmm. tey euh, tëngeej moom laay fa lakk gis nga tey euh, ñëpp ñu bëri posté nañ mm, dugal mm. nga gis paam politicien ñëpp ku nekk yaa ngi dugal ay euh, maye soble maye pombiteer parce que mm. pour ñii amul doole ñii may ay xar ñii amul doole ñii amul lii mm-hmm. te pourtant gis nga sa centre boo ma yor foofu noonu ci tabaski bi amul kenn ko fa indi benn saako soble di su pour ne la. gaa yi boolewu ñu leen si dara. boolewu maanaam même si côté couche couche vulnérable sax. sax bokkuñ fa sax dañ ko demee boolewu ñu leen si alors que ñoom ils sont plus képp koo mënti gis. man dama yàgg yëngu si yenn yu bëree bëree bëri ñoom rek laa xam ne amul kenn ku mën a teg dara loo xam ne euh, ñoom kenn ku leen gën a vulnérable. Mm. ba pare aussi la société est injuste envers ñoom. Mm. parce que li leen dal dafa jombul kenn ba pare da leen dal ba xam ne ñoom ils ne sont pas conscients que lii da leen dal. Mm-hmm. et que sooy taxaw di xool gis nga même quand tu pour eux même quand tu plaides pour eux. Mm. yow nga gis les gars image yow bi ñu lay xoolee. Mm-hmm. ce qui veut ni maanaam euh, comme daa am benn terme bu ñu gars di faral di utiliser bëgguma di ko mais euh, ginnaaw ko quoi émission la comme ni ñu ay dof du wér. Mhm. dañ ko def ba def ko ci boppu sénégalais yi. waaw mhm. maanaam l'handicapé mental. Mhm. Euh, maanaam dañ ko condamné day mourir comme ça. ce qui veut que ni baisser les bras bu leen ci jéem dara. moo tax kenn jéemu ci dara même soo jëlee décision de la santé mentale amul budget tey quand parle. regarde bien même les événements yi di am. Mm-hmm. même bu même su ñu dem plus loin même les politiciens yi fi ne regarde même leur programme ban programme wala ban politique nga mos a gis ba ñu teg seen programme wax ci pour wax ci santé mentale wax ci errance bi. regarde combien de fois ngay toog jékki gis ci mbedd bi ñu la par exemple kii kat benn oto moo ko fiir benn maanaam la oto fiir wala moom la ñu tee moom la ñu violente wala moom la ñu lii. Mm-hmm. alors que les gens n'en fait pas un débat. Mm-hmm. kenn da koy liir ah, ah, ah non maasu xaw a lii metti na pare na si. te suba nga gis benn fee bu ndaw xëy na sax koo xam ne sax yàgg na def ay ay ay ay mbir société bi yàgg na gaañ société yàgg na bara par exemple ab koo xam ne lu bon la yàgg def. Mm-hmm. dara dal ko nga gis ñëpp commencé di di si waxandoo. alors que ni ces gens là maanaam pour lu leen jege situation lu yomb la. Mm-hmm. et que beaucoup de gens mën nañ mun nañ mën nañ leen reprendre. tey suñ dee ba di wax ba par exemple agriculture wax si yenn yi mais ces gens là ñoom mu mënoon dem dem liggéey si tool yi. Mm-hmm. mais il suffit que il suffit que vraiment que l' du moom rek de l' état central le ministre surtout les familles ñu ñëpp ñu engagé wu ñu engagé wu ñëw jàppaleen pour que pour que loolu loolu mën a mën a am parce que la majeure partie koo si jël avant feebar di la dal daan nga liggéey wala am nga si loo nekkoon mm-hmm. tey dama koy jox saa su damay damay jël dama koy jël en miniature joxe ko si delloo si centre boobu noonu képp koo fa gis ku nekk am na looy def am na tâche boo xam ne dama la koy alloué mm-hmm. même su may indi dara man mën naa ko mais su gis kii lu defoo dama ne naan kaay jàpp si donc ñuy dem ba mën a def loolu kon ma masamaa ñeneen mm-hmm. te man yor naa fi ñoo xam ne ay judduwaale la ñoo xam dañuy judduwaale feebar dañ ko judduwaale day judduwaale la ba pare bon axamaka ah, am na touche boo xam ne moo si gën a gaaw tey ñu waxtaan gis nga tey da ngay xoola euh, les enfants défavorables mm looy gis ONG yu bëri ñëpp ñu ngi siy xeex. Mhm. di leen jàppale. Mhm. te ngi si enfant dara bu ñu jàpp si jël jël yóbbu. les droits de l' de l' enfant maintenant est ce xam nga ñoom est nga ba xam Sénégal benn structure boo xam ne si xale si ñoom yi nga xam ne dañoo judd waa ay malamante comme dañoo judd ñu ngi si mbedd bi di xeere. Mhm. ban structure moo leen jël fii Sénégal da nga ko am da nga xam. non man ñoom laay jël ñoom ñoo soo ñëwee sama centre comme récemment am naa am naa benn cas boo xam ne maa ngi ko dugal di rëcc parce que maa ngi seet ay famille pendant plus de un an et quelques mu gis mais mu gis laa xam ne naka tey li ko dal moo dal papa ji. Mhm. ces gens là donc si je man comme moom par exemple tey si su ma ko jëlul en charge ce qui veut dire que ni il est condamné à à vivre dans la rue. Mhm. alors que li ko dal moo dal papa ji. Mm, mm, moo dal papa ji mais si ñoom dafa bëri si xale yoo xam ne ñu ngi ñu ngi ñu ngi si mbedd yi moo tax actuellement centre delloo si xale yi la privilégié. xale yi euh, boo xam ne xale errant dama koy mm-hmm. jël d'office mm-hmm. mais su nekkee mag actuellement dama commencé mag dama xaw a semence di bàyyi mm-hmm. mais par contre dama leen di indi toppatoo leen bàyyi la waat leen tuuti tuuti mais am naa fa am naa fa ay mag am naa fa paa bu de soixante ans am naa fa jeunes yooyu parce que ni euh, les moyens font défaut te ko aussi ça ne sert à rien nga téye fa ñu bëri alors que te doo leen mën ne entretenir mënoo leen entretenir après comme si ñoom képp ku si feebar képp ku ma santi par exemple sa yaram daa tàng wala lii je t'amène directement parce que y a le chef district du département. mais est-ce que boo demee hôpital yóbbu leen dinañ leen toppatoo. foofu à foofu laa foofu laa doon ñëwee. parce que mm. y a district du département fa lay remercier une fois de plus du département moom mettre en relation ak ak Serigne Thiam maintenant moom moo permettre fi mu ne képp ku si xawat ku si tawat mun naa ko fa indi mais ticket consultation laa dul jënd. Mm. mais lépp luy médicament man maay jënd. yow yaa koy jënd. rajo te ñoom leur cas c'est ça. donc il faut rajo. Mm. man maay jëloon maa koy fay. Mm. lépp ci sa xaalis. lépp lépp ci sama xaalis. mais est-ce que loolu mën na continuer tamit Ameth. bon ah, ya yàlla moo yàlla moo xam. Mm. yàlla moo xam moo tax it euh, depuis quelque temps maa ngi commencé euh, di ko wax parce que ay temps daan ma ko wax parce que askan bi xam l'essentiel mooy que ni sama yéene. Mm-hmm. sama yéene je ferai tout mon possible pour aider le maximum mais lenn naa ma wóor boo wóor. aider leen ça n'est pas Delossi moo leen moo ko mën a fi jeexal. Mm. ça n'est ab benn sant moo ko mën a jeexal mais il faut que l'État. Mm. Euh, les municipalités. def la commune dafa ñëw def si def si def si la des mais non seulement des moyens mais utal leen quelque chose pour ñoom comme par exemple ab benn village boo xam ne c'est exclusivement dédié à ñoom. parce que dama si am ay cas yoo gis nga tey da ngay jël kenn toppatoo ko. Mm. ab ñu ko hôpital def finition ba nga xam ne tane na. mu ñëw un mois deux mois trois sabar après mu rechuté après société yi moo koy rechuté loo mm-hmm. parce avant toute chose comme li ma la wax sax jàpp nañu dof du wér da koy utal sax benn peut-être liggéey bu muy liwee muy kii après ñu fekkaat ko fa kii ko déstabiliser ko ñoo ñoo koy si la ñuy dëkk si la ñuy dëkk ba pare aussi en dehors de drogue bi aussi ni muy doxee si dëkk bi yomba yomba ba nga xam ne. Mm-hmm. des fois parce que bëggoon naa ci wax parce souvent est tamit ñiy ñëw ci centre bi yow ñi ngay rencontrer euh, du toxum yamba bi wala drogue bi parce que nee nañ jeunes yu bëri drogue bi moo leen dofloo yow loolu d'accord si ak yamba bi. mais mais bien mais bien sûr am na je je ne sais moom laa la wax sànq. Mm-hmm. xam nga d'après certaines personnes gis nga soo gisee li moom laa la wax sànq bu may expliquer. Mm-hmm. imagine ab adolescent. bu nekk sa kër. Mhm. commencé di def naka su dul noonu. Mhm. vite fait ngeen ne dafa bon ëllëg ngeen jël yóbbu ko hôpital ah mais jëm kenn buddi ko. Mhm. ngeen bàyyi ko mu dem si mbedd bi. di fréquenté peut être xëy na koo xam ne ab dealer la. mu koy tuxloo. benn tuxloo bi commencé dootul lekkati normal ay at dootul sanguti dootul li day dem balaa fee day commencé am feebaru xel. drogue moom ñëpp a ko nangu. ba hmm. baaxul baaxul si kenn. mais mais mais euh, kii nii Ansoumana Dione bu ASSA moom nga xam ne euh, ràññee nañ ko bu baax a baax ci xeex li nga xamante ne mooy ñu am feebaru xel moom d'accordul yéen ci seen centre bi parce que nee seen centre bi li muy def euh, dëppoowul ak yoon yéen amoo leen droit di jël ay andik ay ay ay malades di leen dugal ci centre parce que yéen li ngeen def kidnapping la ko tuddee moom yow loolu lan nga siy wax moom nee na d'accordul ci centre delloo si. centre si dañ ko war a tëj centre bi nga xamante ni fa lañ war a yóbbu lee malades mentaux mooy centre bi nga xam ni tabax nañ ko à Kaolack te muy réclamer ñu ubbi ko nee na euh, loolu moo dëppoo ak yoon mais yow li ngay def dëppoowul ak yoon. waaw waaw merci beaucoup en tout cas man leen laa mën a wax. Mm-hmm. képp kuy yëngatu ci santé mm-hmm. ma sa fay maa lay jaajëfal bu baax a baax. Mm-hmm. ak manière bu si mën di yëngatu. képp kuy yëngatu ci santé mentale jàpp naa ne mën nga koy defal. képp kuy yëngatu ci santé ah mhm. yàlla na la yàlla fay si li ngay def mhm. xam nga cadre nag par exemple liy dëppoo nag yoon ak dëppool yoon man tey su ma sañoon mhm. su ma sañoon wax dëgg yàlla rek a tax may wax nag xam nga instant xam nga la def yi je suis un juriste de formation j'ai fait un master en banque en banque finance assurance euh, j'ai j'ai arrêté mon DST de transit et école de douane à cause de ça su ma sañoon tey état mooy mettre en place des études yoo xam ne ñoom dañu leen ak yoo xam ne kenn du man ne damay dem liggéey sax fin de mois su ma amee sama xaas ñëw daggal leen ci sama salaire benn tranche ñëw yóbbul leen. Mm-hmm. man xam nga dama fekk tere bu vide mun naa xaw a waxee noonu parce que ce que je suis en train de faire là je le dis c'est pratiquement c'est unique. maanaam mm-hmm. euh, mu ngi soog am. mu am moo am benn phase expérimentale bi ñu naan par exemple la socialisation. Mm-hmm. te laa nekk di def. maanaam ah. li ñu gën a ragal ci wàllum santé mentale. waaw kay waaw moom laa moom moom laa moom laa moom laa boolewaat leen ci société bi. malgré leur handicap. effectivement. nekk ak ñoom euh, H24 di si def sama xaalis euh, di si def sama temps di si sacrifier euh, lu ne te da ngay jël tabaski lañ jóge mhm. ba léegi sama soxna gisuma tabaski yu ma wax moom ba léegi mënuma dem ci ñoom nga tabaski te takk année si ñoom laa déngool ba léegi nii mënuma dem si sama soxna mhm. donc jàpp naa yàlla yàllaa tax may def keneen nu nga ko munti gisee xëy na peut-être xër la a ah, bëgg lépp baax la rek mais man lenn laa gëm la santé am na ñu bëri ça fait des années. Mm-hmm. yàgg nañ di si wax. Mm-hmm. mais on ne voit pas ab mm-hmm. évolution bu si am. on ne voit pas ab changement bu si am. il est grand temps que change change. il grand temps que ñun. mais mais yow d' accord nga ni Ameth li ngay def dëppoowul ak yoon waa wala déet. xam nga je suis un de formation. am na yoo xam ne moom lay faral di wax. ci côté santé mentale bépp acteur bu si ne. du daaf du toog rajo wala télé di buggee ma créer contradiction ak yow ku nekk mu nga xam mais képp looy def rek euh, da ànd naa xel àndul ak yoon c'est vrai xam mm-hmm. naa xel àndul yoon mm-hmm. xam nga fooy jaar ni ku ne comme tey jii maanaam tey par exemple su ma gisee tey yaa ngi def par exemple euh, koo xam ne euh, daa am problème mu feebru xel nga xam naka sul noonu mm-hmm. xam naa fi may jaar mais lu ma wóor ba wóor lu ma wóor ba wóor képp ku nekk si côté euh, santé mentale aw ma sa fay maa ngi lay jaajëfal di la encourager nga continuer si d'accord ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey jii euh, Ndeye Comba Moreau dalal Ahmed Daf nekk euh, initiateur bu centre delloo si nekk fële ca Tëngéej nga xamante ni euh, dañ ci taxaw souvent ñi nga xamante ni dañu am feebaru xel nekk ci mbedd mi naka lañ leen di boolewaatee ci société bi yow tey jii lan ngay suggérer état wu Sénégal parce que wax nga ko léegi du benn Ahmed Daf moo mën jàppale carrément également ñi nga xamante ni ñu ngi am feebaru xel parce que ils sont un peu partout dans le pays peut-être yaa ngi focus ci ñi ngi nekkee ci euh, sa gox di Rufisque ainsi de suite maanaam dafa laaj ay moyens euh, dafa laaj suivi pour ñu taxawu carrément ñi nga xamante ni dañu am feebaru xel yow lan ngay suggérer état wu Sénégal par rapport ak ça est-ce que yow da ngay fekk si a jonn si li muy wax ni euh, bis bu ñu ubbee. suñ ko joxee caabi euh, centre bu Kaolack maanaam daañu régle euh, le problème des malades mentaux errants yi nekk ci Sénégal yëpp xaj nañ ci centre boobu ñu mën leen a euh, suivre carrément ba ñu bokkaat ci société bi yow lan ngay suggérer d'accord nga si loolu wala am nga beneen idée par rapport ak situation bi. waaye ay mais merci beaucoup. Mhm. xam nga li ma njëkk a wax li ma njëkk a suggérer état du ma wax si waxu centre. Mhm. parce que naa centre boobu tijji woon na ay jamono. ñu tëjaat taxul woon. mais yaa ngi si problème mu santé mentale sax am nga xalaat ci santé bu kaw la ginaa ginaa si dugg léegi mais xam nga mhm. la laa njëkk a suggéré état lu nga wax lu ëpp solo mhm. mooy état faire en sorte dès à présent pour chaque département wala chaque commune mhm. le chef district du départ am division de la santé mentale à l'intérieur les hôpitaux yi nga xam ne ñoo am yu gën a mag par exemple ci commune yu mag yi wala ci département yi mhm. moom foo xam ne képp ku am sa dëkk ku am feebaru xel mhm. dina ko mën a jël yóbbu foofu noonu mhm. parce que tey yaa des familles yoo xam ne ñu ngi téye seen doom yi euh, maanaam euh, suñu sañoon duñu leen yóbbu duñu leen yóbbu ci centre mais par contre comme yow ni ngay feebaree da mën a dem hôpital mais ñoom nañ la jox seen droit ñoom tamit nañ leen permettre kam ñu suñu feebaree ñoo te xam ne day nekk ci biir yoo xam ne day jege ci commune bi ñu wala def ñu mën leen fa yóbbu amul ab euh, amul euh, hôpital yi fa ne amul benn bu fa am division santé mentale à l'intérieur mm. te lu Tëngéej demal wëral Sénégal yëpp nga xool déjà présent donc il faudra que les départements mm-hmm. Euh, au minimum quoi su les am les euh, bu gën a mag ci département yi mm-hmm. am à l'intérieur benn division santé mentale nga xam de cette manière képp ku amati sa sa doom mm-hmm. bomb feebaru xel maanaam yow dangay ngay suggérer gox bu nekk mu am Euh, médecin psychiatrique wala ah, ah. mu am foo xamante ni fa la ñuy fajee ñu am feebaru xel lan ngay suggérer carrément loolu laay suggérer maanaam fexe ba gox bu ne mhm. hôpital bi hôpital bi fa ne xam nga gox bu ne nga dem am na ay hôpital si biir hôpital bi mhm. mu am boo xam ne dina am benn psychiatre boo xam ne dafay ne. Mm. parce que xam nga la lay permettre. mais mais ñoom traitement bu spécial la moo tax foog ñu utal leen fa spécial pour traiter leen. Ah, parce que wax nga ko sànq. Mm-hmm. feebaru xel c'est un peu. Mm-hmm. voilà à part. Ah, voilà léegi niveau yi ñoo tolloolu xam nga fa laay waxee. Mm-hmm. tey par exemple dina tax képp koo xam ne toog nga sa kër. gis nga xam nga loo gis day am début. commencé nga gis sant nga kii mu ngi commencé am benn début yenn yi doo xaar doo xaar bu mu lii. bi fee da nga koy mu dem xooli ji ko su ko xooli jee yow yow la xamal par exemple fan ngay jaar wala fan nga dul jaar mhm. la majeure partie sur loo xam la ñuy xaar dañuy xaar ba mu avancé nga di avancé ñu jéem a xool nan lañ koy yóbbu hôpital wala nañ lul ko yóbbu yóbbu hôpital mhm. ba pare aussi les hôpitaux psychiatriques a mhm. combien de psychiatres aussi au Sénégal bëriwul aussi donc loolu noonu moo war a njëkk avant dara di xew aussi par rapport ak euh, soo su xasee ba am il faudra ay village am comme par exemple centre bi euh, bi nga wax sànq. à Kaolack à à mhm. centre boobu noonu um, mun nañ ko foo xam ne peut être mooy nekk par exemple euh, phase de socialisation après. Mhm. par exemple su ñu jëlee par exemple nit ki ba cicatrice xool ko ba pare ba yenn yi. Mhm. léegi ñoom mun nañ leen yóbbu par exemple centre boobu wala créer un autre village. village boo xam ne. ça ne sera pas uniquement village boo xam dañu la indi euh, médecin da lay xool rek. Mm-hmm. mais day am ay menuiserie ci biir am tool am am partie am lépp foo xam ne. Mm-hmm. fa la ñuy assurer la socialisation euh, par exemple les euh, les locataires les pensionnaires. Mm-hmm. comme ça ñoom képp ku fa ne ku ñu gis ni état bi ba médecin yi commencé santé état mu ngi commencé stable nga ni stable lu ñuy récolté ñooñu la ñuy commencé utal leen ay place marché ñoom ñooy dem di koy jaay ji di indiwaat. comme ça à l'intérieur ñoom dinañ am benn lay mujjee doon donc loolu ba am. gëm naa ne solu léegi waxuma par exemple ñëpp gën nañu wér hmm. parce que mënul ne mais errance bi eh, errance bi du amati dina wàññeeku dina wàññeeku dañ si jëg si mi non gina dañ wala sinon su ma waxul état ñu wax par exemple les maires les communes hmm. faire en sorte que ni que leur commune wala leur leur ville am benn genre centre ba mel ni eh, delloo si benn kër boo xam ne kër socialisation la kër goo xam ne Euh, xam nga am na des acteurs communautaires yoo xam ne ñoo ñoo xam ne ñu ngi fi. Mhm. des gens yoo xam ne ils sont prêts à aider ils sont prêts à soutenir si yenn yi. Mhm. wutaleen fenn foo xam ne euh, su amoon par exemple si commune bu ne si Sénégal tey par exemple kenn dootul nekkal si mbedd bi en dehors de ça pour nga retrouver nit famille dina yomb. Mhm. parce que euh, su boobaa dina am système boo xam dina am link entre entre tous les communes. ku ñu gis rek suñ ko yóbbu feeg dañ xam ne kii fii la dëkk ku ñu retrouver la famille pour faa fee mën ko jàppale dina nekkal lenn lu yomb. après aussi l' état aussi. ñu faire bénéficier aussi simi seen médicament aussi mm-hmm. l' état subventionné ko faire en sorte que ni injustice bi nga xam ne euh, moom lañ teg par exemple les handicapés mentaux mën a jeex ñu considéré comme de handicapés à part entière lépp loo xam ne droit boo xam ne privilège boo xam ne handicapé am na ko ñoom ñu mën ko am loolu mooy euh, pour man loolu mooy solution bi et que j'en suis sûr et certain euh, su ko état appliqué d'ici trois ans doo gisati képp kenn koy air si mbedd bi mm-hmm. parce que rafetul te doy na waar te saa ñu ngi gën a bari ci mbedd mi euh, naka gisee centre bu Jacques Chirac est-ce que souvent yow di nga euh, jëlee euh, di nga jëlee si sa centre delloo si dem yóbbu leen centre Jacques Chirac yow naka gisee ñoom liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy def souvent si ñu am problème mu xel lii ak drogue bi. waaw waaw waaw foofu euh, bon ki euh, du li ma fay li ma fay dem yëpp des fois réunion la. Mm. Euh, réunion lay doon ci cadre reposam réseau national pour la promotion de la santé mm-hmm. mais par contre man je travaille d'habitude su ma amee yenn de la division de la santé ma koy mm-hmm. na ci taxawaay taxawaay bu am solo. ci mm-hmm. moom laay faral di oo moom moo may jaral joxe comment yenn direction yu may yu faral di jël. aussi tamit tamit su nekkee si côté hôpital yi bu caaroy bu caaroy la ñuy la lay faral parce que moo ma gën a jege. Mhm. mais centre Jacques Chirac yow naka nga gisee seen liggéey. bon comme comme li comme li ma la wax sànq rek. Mhm. Euh, dafa des amuñ moyen wala état bi jàpp si carrément. non si gis nga si domaine santé mentale. su mhm. dee ba nee la division santé mentale amul budget. Euh, ni nga xam ne sa ministère maanaam sa division fi nga xam ne fa nga baat su amul budget kon yow fan fan la fan la état par exemple euh, say moyen nan la mën a ñëwee. moom laa si côté santé mentale. dans nos pays rawatina fii si Sénégal. Mm-hmm. pour l'instant képp ku si ne xam na ni bu baax wala képp ku si neewul même sax kuy xool xam na bu baax que kenn jàppalewul leen jàppale bi war. que mm-hmm. ils sont laissés en rade complètement injustice totale la ñuy dund que les malades mentaux les handicapés mentaux maanaam euh, ki maanaam ki askan bi boolewul leen si ñoom. Mm-hmm. dañu leen di xool la mën a part comme poubelle yi ñuy gis si mbedd bi. moo waral koo fekk si pabel du la déranger. Hmm. yaa fa mën a jël le sa lekk mun na des sax mun na des xam nga am na ko des loolu doo ko defar ci bool bu rafet dem tegal ko da tuur ci poubelle ba xam nga soo ko tuuree gina ko jël gina ko fa lekk hmm. loolu mooy réalité bi donc amul kenn ku si yàpp nee naa la société bul xool état rek hmm. demal si demal laa demal demal muy pouvoir opposition les politiques ñi di laaj dëkk bi pour war ne la affaire bi si ñun ñun si ne suñu jugul taxaw dunawul changé xool élection présidentielle yi romb déglu seen i discours même journée mondiale journée journée mondiale euh, du ko la santé journée mondiale de la santé moo siy wax si ñoom kenn du si wax ce qui veut dire que ñoom seen i prévision yi war a ñëw santé mentale bokku si. léegi Covid 19 bi ak euh, ñi am feebaru xel temps bi jeex na pratiquement une deux minutes avant ñuy tàggatoo naka lañu ko dundee ñoom. Covid 19 bi ak ñi am feebaru xel. waaw waaw man moom euh, personnellement. Mhm. Euh, si sama si centre par ñi ñu fa ne. man déjà je me suis vacciné te ñoom tam jël naa leen vacciné na leen. ñoom vacciné nañ leen. waaw waaw loolu moom loolu moom a euh, déjà. foo leen yóbbu ñu vacciné leen. ba hôpital. Mhm. hôpital. Ah, mais aussi man déjà am soo ñëwee sama bëri sax instant gi nga fa gis dispositif lavage de main. Mhm. képp ku fa képp ku fa ñëw. Euh, gina raxas loxo gina laal gel déjà peut actuellement sax dama wàññi dama wàññi yi dama wàññi yenn yi mhm. tey moo tax it Covid bi moo ñu xaw a actuellement ba lu mu reprendre. Mhm. moo tax suñuy activité aussi yenn ñu xaw ko wàññi tuuti parce que normalement mi soo gisee tabaski bi. Mhm. Euh, parce que d'habitude ay fête dañuy génn. comme Sénégal dañuy defee dañuy def mais yu bëri yu bëri dañ ko lii. maintenant euh, bu am na ñoo xam ne aussi ñu ngi ci mbedd yi ba léegi. mais moom laay faral di wax ñun ñoo leen mën a aar askan bi moo leen mën a aar daaf rek mënu leen aar. Mhm. il faut dara ñëpp ñu aar leen. état kase aussi tam mënu leen aar seen famille tamit mënuñu leen aar donc il faut ñun ñëpp ñu jàppandoo si pour que loolu mën moo mën fi jóge te ñu xam ni li leen dal jomuñu jommul benn doomu aadama. Mhm. te ñu xam ne aussi moom laay profito lancé waale. gis nga si tabaski gis nga gars yi ni ñuy wanee élevage gis nga fi mu toll gis nga nit ñi ni ñuy jàppale mala yi gis nga gis nga ni leen defare ba du jawal mhm. gis nga képp ku mën a dressé dressé mala war nga mën a dressé war nga mën a jàppale doomu aadama da ngay gis ni même sax euh, mala yi lañ gën a jox lañ gën a jox ci cër sax ñoom mhm. ci domaine bu ne te loolu noonu il faut dara mu jeex di leen si invité yéen surtout les journalistes mhm. parce que gëm naa ni euh, ñi ma dama seet centre ba dégg lu bëri moom laa andi wax euh, ce n'est pas xaalis moo mën a régler sa problème là parce que daaf tey su yoroon sax milliard milliard day jeex problème dafay des. Mm-hmm. mais par contre si on réussit à faire en sorte que ñëpp di ko waxtaanee. la sensibilisation waaw kay ñëpp def ko comme ni ñu defee feebaru paludisme. def ko comme ni ñu de ni jàppee cancer ñëpp def ko ni ñu jàppee yeneen feebar yi gëm naa ni d'ici quelque temps saaf saaf saaf saafara gi gën si am. donc euh, di la si invité ma ma ma soeur. Mhm. pour que nga gën a nga gën a si sensibilisation. Mhm. di si invité aussi tamit euh, ñi nga xam ne ñoom la ñuy oo oo les influenceurs. ak mhm. tout le monde pour que ñu mën a jàpp jàpp si loolu ñoom dañoo dañoo bokk si ñun. te ce sont des gens yoo xam ne neex nañu nekkal ba pare lu si gën a gaaw képp xool sa koñ. wala say amee d'enfance di ñëwaat gën a gis si kenn si ñoom comme ne loolu feebar boobu noonu da da dal na ko te te mu muy seetaan soo xoolee les chiffres euh, de l'OMS li ñu wax. d'ici quelques années. soo moytu mooy nekk xaw ma troisième ku ku ku cause cause mondiale feebar mm-hmm. te soo moytu d'ici quelques années ñun suñu doom ñooy juddu te suñ si teelul jug képp kum si dal comme ñeer si mbedd noonu lay mujj te kenn te kenn ñaanu ko ñaanu ko yàlla euh, Ahmed Daf ma bàyyi la nga tàggatoo ak <laughs> euh, euh, di nuyu nga xam ne ñëpp ñu ngi doon déglu émission bi di di leen jaajëfal ñoo ñëpp di di nuyu surtout di remercier le mm-hmm. préfet du du mm-hmm. ñoom Serigne Thiam aussi bu chef district samay passionnés ñu nekk sa centre bi yëpp aussi. Mhm. ok je jëf. Ahmed Daf ñu ngi koy remercier bu baax a baax nekk initiateur directeur bu centre euh, Dello si fële ca Rufisque ñu koy remercier euh, bu baax a baax ci disponibilité am di leen remercier yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10h à 11h di remercier Mamadou Diaw Diallo bi nekkoon ci cabine technique bi kon émission bi euh, mun ngeen ko dégluwaat ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel wala ci suñu site internet www.rewmi.com am nga ba samedi prochain incha allah ci beneen émission beneen thème ak beneen invité jaa ngeen jëf.